سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd ak ci weer wu tedd wi tey nan nu bëgg a waxtaane njubug alxuraan ak jeexit ji mu war a jeexital ci ab julit alxuraan mooy risaalab sun boroom jëm ci jaam ñi la muy digleeg la muy tereeg la muy dëleeg la muy tëkkoog la muy nette la muy xamle lépp rot ci téere boobu bii téere boo xam ne dafay gindee jëm ci yoon wi gën a jub ci mbir mu mën a doon rek moo xam muy lu jëm ci wàllu jikko yi wala ci melokaan yi wala ci doxin yi ak ci mbir yëpp loolu sunu Boroom di wax ne inna haadha alqur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashiru almuminin alladina yacmaluuna alsalihati anna ajran kabira nen alxuraan ji mooy lii de jëme ci yoon wi gën a jub sun boom itam di bégal jullit ñi nga xam ne dañuy jëf lu baax bégal leen ci nekkat yool bu rëy rëy bu màgg dañ ko ci làqe ci buñ jàngee téere bi te jëfi ko ay ayaat yu bare bare root yu tegtal jullit ñi ci melokaanoo ngeen jaa rafeti jikko yi ngeen jaa màggi jikko yi di leen soññ itam ci jàpp ci tamu sikk sàkk ci ne sellal bakkan yi ak laabal xol yi ak sellal ko mooy li taxoon suñu ba mu yónni yónent yi alayhim ci mboolem jaam yi loolu suñu bon wax ne kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum kitabal hikmata wa ni ko ñu yónnee ci yéen ay yonent yu bokk ci yéen di ay nit ni yéen di jàng ci yéen aayay sun borom yi waaye di leen sellal di sellal seeni xol ak seen seeni bakkan den jàngal téere bi den jàngal xam-xam den xamal loo xam ne xamu leen ko woon kon dañ gaaral ci ay aaya yoo xam ne rod na ci téere bi yàlla bi yu woote jëme ci sellal bakkan yi ak jikko woo jikko yu rafet yi bokk ca yooyee li su ma di wax ne laxad manna allahu ala almuminin id fihim rasul min anfusihim yetlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yaalimu kitaab alxikmata in kaanu xibla fi dalal mubin yàlla defal na xéewal jullit yi gan xéewal mooy bi mu ci ñoom ay yonent yu bokk ci ñoom di jàng ci ñoom aaya yi muy téere yi sunu Boroom wàcce ci ñoom di sellal seeni bakkan di leen laabal waaye di leen xamal téere boobi yàlla ci ñoom waaye di leen xamal xam-xam bu am njariñ te lu jiitu loola ñu nekkoon ci réer goo xam ne réer gu biir la kon gin njubug alxuraan mooy leen gindi ibnu kasir bi muy firi ay boo dafa ne sunu dafay dafay fàttali dafay fàttali jaamam ñi nga xam ne ay julit lañu la leen yàlla xéewale te bokk ca xéewal ga yabal gi mu yabal ci ñoom ab yonent wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng ci ñoom ay yàlla yi nga xam dafay leeral di biiral ay ndénkaani bi ko digal ak i di leen tazkiya di leen sellal di laabal eh, ci mboolem jikko yu suufe yi jikko yu ñaaw yi eh, xeet eh, eh, bakkan yi ak jëfiini jaahili mooy jëf jëfiini ceddo yi ibnu saadi rahimahullah ne wa yuzakkikum ay yutahiru axlaaqakum wa nufusakum bi tarbiyatiha ala al wa tanzihiha an al axlaaqi nee na wayu sakkiikum ji mooy da leen laabal dafay laabal seeni jikko laabal seeni bakkan sellal ko ci kaw yar buñ leen di yar ci jikko yu rafet yi waa sellal leen soril leen mboolem jikko yu ñaaw yi mooy da leen di sellal jëlee leen ci bokkale jëlee leen ci tawxiid muy wéetal yàlla ci nañ ko war di leen jële ci ngisal di leen yóbbu ci ixlaas muy jëf te yàlla rek tax sellal di leen jële ci fen di leen yóbbu ci dëgg di leen jële ci wuuruj ak mboorak yu ni mel jëmi leen ci amaana muy nekk muy ak wóor jële leen ci ak rëy jëmi leen ci tawaadon muy sippiku wàcce sa bopp ak woyof jële leen ci ñaawuk jikko jëme leen ci rafetuk jikko jële leen ci bañanteeg gàddaayanteeg foñanteeg dogo jëme leen ci taqoo akuk tàppoo akuk soppante te yàlla tax ak yudu yooyu ci xeeti taski xeeti sellal lépp alxuraan dafa ñëw ngir def ko ci doomu aadama loolu suñu digal yoon saasam ci ci ci ne ko yaa muddathir qum fa andir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahir wa rijsa fahjur wala tamnun tastakthir wax ci pirim ay jooju ne maana mi mooy nanga nga ak tedd ngay jikko yi jikko yu rafet yi na nga taqoo ak moom tamit jikko yi gën a kawe gën a tedd gën a baax gën a sell ta nga sori nag mboolem bon jikko yi nga xam ne musi ne ni muy wedd yàlla dañu ko melokaanoo borom bi subhanahu wa taala itam digal ko ci mu sori li ñu tudde alman alman na mooy jëf lu baax ba noppi di ko naw mooy di ko rëyal di ko baril di ko wanoo jàpp ne def nga lu rëy moo xam ne joxe la ngir yàlla ci yoonu yàlla ba noppi jàpp ne def nga lu rëy rëy li fekk li li fekk nit kaa nekkagul karim karim moom lum joxe da koy xeeb donte lu bari la day jàpp ne deful dara kooku mooy karim mooy dëgg-dëgg ko te ku tabe dëgg-dëgg-dëgg du joxe ba yéeg na joxe na lu bari ak donte bari na ndax du ca xool lu may jëm yàlla rek subhanahu wa taala lu mooy melokaanu julit bu dëggu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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول suñu أكبر الله أكبر لا إله إلا الله mboolem jikko tedd yi yëpp nag ko làmboo di ko jàngale alxuraan ak waar la bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa jëm ci mboolem jullit ñi alxuraan saafaras xol la alxuraan ak njub la alxuraan yërmandi ci mboolem jullit yëpp di bégal jullit yi di di bégle ci jullit di xuppe ci yëfar yi loolu su yaa ayuha nnaasu xad jaakum mawidatu min rabbikum wa shifaau lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil muminin kon alquran ak waar di ak fàttalee di mbégte waaye ci julit ñi waaye di ak xupp ci yéefar yi nekkul yu saafara mboolem xol yi itam ci wére dig sikki sàkka wére waru wére dig njissal euh, wére dig nafiq kiñaan mbañeel ak soxar ak yu ñoom ci mboolem ñaaw-ñaaw jikko yi alxuraan dafa ñëw ngir saafara loolu waaye alxuraan na balaa mën a jeexital ci jullit bi ci noonu faaw day fekkit nit ki di ko jàng te di ko settantal te di ko jëfe mun ta jeexite te te nun nag gannaaw bu noonu digal yàlla ba noppi Sëriñ Tuubaa daf ko digal soññu ca te farlu ci jàng alquran kullu muridin bi yaluutu fal yudim tilawatan li xayri dikrin xadru sim bépp boo xam ci man laaju ju digal naa ko na sax la jàng alquran ko jëndal adim tilawatan lidal kitaabi walaw thalathati min al saxoo koo jàng bis bu ne donte ñetti xisib la waaye ab te xëy suuf ba so te jàngul alquran waaye itam jàng balay mën am njariñ wala wala balaa jeexital mu mu am setantal nga ko setantal xama araqul min min mawlaahu fal yuthbitan tadabbur alquraan sëñ Tuubaa nee na ku bëgg a jege yàlla nay saxaala jàng alquraan te di ko seetantal wa ayatun waxidatun tudubbirat fiha tafuhu xadmatan minhu xalat benn aaya boo jàng seetantal ko xam la ci sunu Boroom wax nga jëfe ko moo gën wàcce kaamilu lëm te seetantaloo ci dara kon tadabbur daf caa am solo waaye bu loolu jàllee nga di ko jëfee ndax jëfe ga mooy tax mu am njariñ fa innahu subhanahu ma anzala illa li taamal bi fa san bi la nango nee na alxuraan dara taxul suñu ba wàcc ko lu may ngeen nga jëf ko kon da ko jëfee kon da nga koy saxoo jàng te di ko seetantal te di ko jëfee bañ ko bañ ko won gannaaw laa tax juranhu wadluhu ma wastan bi ma cheetu min abada Sëñ Tuubaa nee na bu ko dëddu mukk bu ko gàddaay moom alxuraan waaye saxoo koo jàng te di ko seetantal te di ca ballu lu la soob ci ay xam-xam ki yàlla yónni woon ci nun sallallahu alayhi wa sallam na ko yàlla wax yàlla na ko eh, eh, doon jikkoom Saad nee na saaltu Aishata radiallahu anha axbirini an xuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa xaalat kaana xuluquhu lquran Saad ibn Hisham neen damaa laaj soxna Aisha yàlla ko yàlla gërëm ne ko damaa bëgg nga xibaar ma lan moo doonoon jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo doonoon alquran jikko alquran mooy lan mooy la alquran di digli lépp nga di ko def la muy tere nga sori ko lam tagge waa ju baax nam mel ba tax suma tagg ko nga mel nga fi jéem ko melukaano lam ŋàññe ku bon la tax sun bo ŋàññe nga moytu loola la muy nga waaroo ca loolu mooy jikko alquran ak la ci aju lépp ci ay ay maana jël na ci abi hurayra mu wax ne e, yun saa sallam nee na innama li utammima salihal axlaq am na yeneen rawaay yu bind makaarimul axlaq waaye bi bi abu hurayra solo moom salihal la wax e, te wax nag maanaam salaax salaax yëpp yiw da cey tàbbi diine dafay tàbbi ci biir as-salaah muy ak mbaax ngëneel daf cay tàbbi muruwaatu mooy mbañam rus da cay tàbbi rafetal da cay tabbi maandu da cay tàbbi moo tax ñu yónni ngir moom mottali yooyu sallallahu alayhi wa sallam te xam dañuy wax ne ay bi gën matale ci wone jëfi njëkk ak ngëneel tedd nga jikko mooy aaj bi sunu Boroom wax ne inna Allaha yaamuru bil adli wal ihsaan wa itaa'i dhil qurba wa yanha anil fahshaa'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun yàlla dafay digle maandu ak rafetal ak dimbale say jege ñaale ci del njox te waaye dafay tari ñaaw téefit ak lu ñu ak mbewte ci yooyu la leen di waar ngeen di fàttaliku di xalaat di fàttaliku ndax nit ki am xelam eh, daf ko war a jari jariñoo ci fàttaliku la mu war a fàttaliku te di ko jëfee ñoo ci sootu Isra itam ay ayaat yu bari yu tedd yu soññee ci jikko jikko yu rafet yi yi nga xam ne dafa am alaqa buy jonjoo ak luy sellal bakkan te ko laabal bokk ci yooye birrul walidayni muy baax ci sa ñaari waajur mooy jëf leen njëkk rafetal jëme ci say jegeñaale jëme ci miskin yi jëme ci kën ci aw yoon te waaye dafa indi tar itam yàq ak ñàkkaray ay doom sori jage itam yëpp ñawteef ak ray bakkan ak jage alal li jëriñ ci lu anam ga gën a rafet ak sàmmonteeg ak maandu sa kem kàttan tey fug lonteeg borom bi taala ci lépp loo xam ne looy dégg ci sa nopp la mbaa nga ko gis ci sa bët nga di ca sàmmonteeg eh, eh, di ci fuglante borom bi subhanahu taala di ko bàyyi xel waaye di gën a dëgëral nag àllaa xam boromam jaam bi jokkoo am ni muy jokkoo ak borom subhanahu wa taala bu di ko gën a dëgëral waxtu nekk tey moytu ndi ko nag rëy ak jalgati jëme ci jaami yàlla yi ak yu dul yooyu ci yi nga xam ne yëpp eh, ay xaalis yu bari root na ci ci koy tegtale ci fexe ba sellal sa bakkan ak laabal ko ab jul ne su seetantalee ndigal yi ak tere yi nga xam ne dafa rot ci alquranul karim te jëfe ko ca nam ko sàkkoo bakkan ma dafa nekk dafay gën di ko xoolam dafay gën di sell di gën a laab waaye dafay cëroo itam dafay tuufoo cofelu yàlla subhaanahu wa taala ak cofelu mboolem jaam yàlla yu baax yi te doon jal ju ju màgg darajal ju teey eh, joo xam ne eh, borom mën na caa jële ay yiw yu bare bare bare bare bari ak i manaqib yoo xam ne mooy itam yu takk lay doon kon nag ñu war a e, dolli nag sunu pas-pas ci gën a yitte woowaat alquran dolli sunu yitte ci alquranul karim di sàmmonteeg moom sàmmonteeg farata yi yàlla yi ci topp sa ñaari waajur jokk bokk rafetal jëme ci nit ñi jéggal képp ku ñaawal jëme ci yow sori mboolem jikko yu ñaaw yi yi nga xam ne alxuraan daf koy moyte ndikulu te bokk yi ci gën a yi ci gën a doy waar gën yées muy doy dal julli ak mboolem ndigal suñu borom yëpp waaye moytu nag e, fipp ci say waajur maanaam won leen gannaaw mbaa dëngoo ak ñoom mba lépp loo xam ne luy tax seen xol du neex ci yow la muy uquuqul waliday ni nga di ko moytu moytu doon dogug bokk ak toggoo ay tooñaange ak mbañeel bañ ab julit wala iñaane ko wala reetaan ko wala xas ko sori daal mboolem jikko yu suufe yi wala jikko yu ñaaw yi loolu lépp alquran daf koy jàngale di ko tegtale kon ñu war a delluwaat ci alxuraan bu baax a baax a baax jikko woo jikkoy alxuraan waaye melokaanu melokaane alxuraan moo tax nag euh, gisuñ euh, Sëriñ Tuba fi mu tegoon alxuraan nga xam ne mooy delluwaayum ci lépp moom la doon saafarawoo moom la doon tegtaloo léppam alxuraan la woon kon nag ñu war a war a war a war a war a nag delluwaat ci alxuraan bu baax a baax a baax gën koo gëstu gën koo dund gën koo melokaano yàlla sunu boom boole dimbale boole defal tawfiq xiiw nu ci ak njub te saxal nu ci daa def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 أشهد أن لا الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه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 أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته ففي طاعته رضاه وأنهاكم عن اتباع الهوى فقد ضل من اتبع هواه wa amrukum bi taajili tawbati qabla an yabluga al ajalu muntaha waalamu ya ibadallah anna man zakara allaha zakara wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wahdaru zamanakum hada fa innahu zamanun qalla xayruhu wa kasura balaa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 وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث أربع من الشقاوة جمود العين وقسوة القلب والحرص وطول الأمل وفيه أيضا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تخالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل ان يكون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الانبياء والمرسلون اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس مع هذه الغفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواعظ كل جمعة وأنتم عنها مهربون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون am tatawahhamuuna annakum laa tamuutuuna walaa tub'athuun ayna al-anbiyaa'u ayna al-awliyaa'u ayna al-mursaluun ayna al-umamu al-maadiyatu ayna aabaa'ukum al-aqdamuun qad saaruu wallaahi fi turaabi wa hum laana zaa'ibuuna mutaqatti'uun kullu nafsin zaa'iqatul mawt ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفي الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال من طال عمره وساء عمله يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah له وأنا حي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلى وتوزع أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام allahu akbar allahu akbar Allah asalaamaaleykum. asalaam.